bu nekk TFM dànkaafu la naata on naatee dossier du Maroc falaa mën a yem xam nga Maroc jàngee nga fa am nañu say dossier Maroc naata am nañu sax say dossier foofu ci TFM ba nga xam ne Babacar Fall Babacar Fall Yamba muy def batam yooyu ni kooni Babacar Fall mu RFM Yamba Babacar Fall Yamba am na lu mu sekk ak yow foofu ba nga am promotion kanape ba mën a nekk ci télé naata mbay xam nañ la xam sa jëkkër bu baax xam sa jëkkër xam sa ex jëkkër aussi nga bàyyi loolu xel xam nga ñun buñ lay xam dañ lay xam xam sa jëkkër xam say doom dafa am lu ñu rus nag parce que sa jëkkër en actuel cité Keur gi la dëkk te cité Keur Gorgui fa la mu sell mi dëkk te bëgguñu mu sell mi am ay jafe-jafe ak ay dëkkandoom waaye dañu bëgg nga xam ne naata bu ñu jógee ci yow waa ji dina la bàyyi de monsieur Fall la tudd monsieur Fall finance lay liggéey muy ku baax foofu rek la ñu mën a yem sa jëkkër waaye benn problème rek mooy am bu ñu paree boo arrêté wul bu ñu jógee ci yow na ndaw sa la def Cheikh Yérim sekk noonu la sa noonu la la jëkkër di def dana la defal conférence de presse parce que xam nañu la li ñu xam ci yéen dafa bari bëgguñu dugg ci vie privée jàmbur mais on est sur le gatsa gatsa il faut ngeen bàyyi loolu xel boo leen ñu defee dara dañuy fayu comme li ma la wax nag rus naa ndax sa jëkkër dégg naa ku baax la sa jëkkër actuel dégg naa ku baax la te vraiment du tooñ donc génnal ci suñuy domaine boo bëggul ñu yegg sa kaw ndax bu dul loolu ñu yegg sa kaw de bu dul loolu danañu yegg sa kaw pour ngeen dégg ginnaaw loolu nag gars yi ma déglu loo leen message ku sell ay ministre Macky Sall yor fa ay grenades lacrymogènes ak ay fetal ba alkaati yi ñemewuñ leen jàpp ne faw ñu jël ma dugal ma ñoom seen fourgon blindé pour bañ ñooñu tiire ñu ay fetal loolu gàcce Sénégal la te maa ngi dànkaafu Macky Sall ndax benn bis bu laalee benn ci leader yi fi nekk le peuple va le sortir du palais et va le comme Samuel Doe comme tous les dictateurs yi nga xam ne jaar nañ fi voilà loolu defe naa yow dégg nga ko léegi nag naata comme la nga xam ne moom moo la daloon moom la ñuy wax ñëpp tous les journalistes tous les journalistes du Sénégal on vous connaît ah un à bu leen fàtte ne waa ji tànjaan daar jaaroon na fi lëndëmal TV ñu wàccee ak ay moroomam ñu wàccee leen bari ngeen yéen ñëpp wàcce wàccee nañ leen fi gat sa patriotes yi beneen affaire bu ma leen di ñaan nañu concentré wu sur l'essentiel y a trop de mana mana dans ces réseaux maa toj fii maa def lii maa yëngal fii maa wàccee fii bu ñu concentré wu ci loolu voilà ma toj fii maa yëngal fii toujours nit ki bëgg a ñëpp gis ko nee nañ leen barigo barigo bu fees du def bruit barigo yu vide yi rek ngeen di dégg toujours keleng keleng keleng maa rajaxe fii man maa accaparé fii ma yor fii ma wàccee fii bu leen concentré wu ci loolu concentrez-vous sur l'essentiel l'essentiel c'est de faire enrôler des Sénégalais c'est de faire voter des Sénégalais l'essentiel c'est de faire face à Macky Sall et ses milices l'essentiel c'est de protéger le projet et de protéger le président Ousmane Sonko ñoom seen caaxaan yooyu nañ leen ko tegal fële yàgg nañ ci réseau yi xam nañu kat moo fi am mérite ak ku fi amul mérite waaye maa toj fii maa rajaxe fii waaw maa yor fii mana mana mana mana ne vous concentrez pas sur le mana mana concentrez-vous sur l'essentiel l'essentiel est de combattre l'essentiel est de finir ce projet jarul euh, euh, yàlla xam na xam nga li nit xamul payu yàlla moo ëpp doole payu doomu aadama xam naa yéen ñëpp nag bëgg ngeen ñu bari bëgg nañu président Ousmane Sonko ràññee leen diw wala yaa def li yaa def li mais je vous garantis une chose président Ousmane Sonko xel bi dafa dafa mel ni lañset dafa ñaw dafa mel ni puso il connaît tout ce qui se passe dans notre pays xam na li fi xew yépp mi ngi dégg lépp mi ngi gis lépp ku yaakaar ne déggul li ngay def da ngay caaxaan ku yaakaar ne gisul li ngay def da ngay caaxaan ku yaakaar ne aussi xamul ne da ngay tricher da ngay caaxaan ku yaakaar ne aussi xamul ne da ngay liggéey bu baax a baax da ngay caaxaan il voit tout mais ce combat n'est pas un combat d'une personne ça c'est un combat de notre souveraineté encore waxoon na leen ko bis bu ne mu fàttaleen leen ko ça c'est le combat de tous les Sénégalais président Ousmane Sonko amul maqaama wala doole boo xam ne dina ko ñëwee ci pouvoir bi di jël ay doomu aadama n'importe où di leen fal ay appel d'offre moo fi am les hommes qu'il faut sur les places qu'il sax xam-xam moo lay jox liggéey bi nga war a am ku mel ni ñun ñun moom dañoo effacer suñu loxo ci loolu nee nañ leen ñun ñu ngi Amérique fii la ñu dëkk fii la suñuy doom dëkk fii la suñuy njaboot dëkk dañuy liggéeyal Sénégal ba Sénégal am ndam ñu toog fii ñu toog nii continuer liggéeyal Sénégal incha allahu rabbi dañu bëgg ngeen concentré sur l' essentiel sur le gatsa gatsa président Ousmane Sonko rek am na message bu mu laaj lancé waa ji Sall xëy na waa ji dina ko dégg waaye ñu xool ba xam. mooy ay mbiram dafa jeex tàkk. voilà. bu déggul olof moo ko ko ci pulaar. gasi bu déggul pulaar moo ko ko ci français c'est terminé bu déggul français moo ko ko ci joola bamban bu déggul joola ñoo ko ko ci soose abanta bu déggul soose ñoo ko ko ci angale rek mooy game is over. junni na ay rakkam ba pare na takk ay bagaasam